أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ngi sant yàlla di julli ci yonent bi Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa di wax asalaamu aleykum wa rahmatullah di nuyu suñ kilifa suñ xalifa suñ wasila ku tedd ak ku set ku sell ak waliyal waliyaabe bi bi le missionnaire de Allah le visionnaire le solution le exemple Thierno Moulay Sow ñu ngi koy nuyu nuyu bu amul fu mu dooree te amul fu di ko sant di ko gërëm di ko apprécier bu baax a baax di wane suñu reconnaissant di fee ci kóolare saa su nekk di am kontante ak mbégte ci moom di ko sargal di ko safoo di ko ndamoo di ko bëggee di ko ñaanal yàlla tawfiix wér ak wér le fan bu gudd ak wér bu yaram mu yàgg fi lool te wér yàlla may ko ati jinne yi yàlla laxa ko fa laxa agut lépp lu mu bugg ci xolam bi ak fépp fu mu bugg a rek. yal na ko fa yàlla àggalil fu mu ko nata yal na weesu foofu yàlla fay ko ci fay yi gën ci fay ci barke Cerno Mulay Sow si barke Cerno Mulay Sow si barke Cerno Mulay Sow si barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam incha allahu rabbi amin ya rab amin ya ngi nuyu famille bi yëpp ci kaw ba si suuf di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay doore ko si laa ma madame Sow princesse prince Moulé yaa jërëtu Mariama Kamara soxna Umu ak ak famille bi yëpp di leen ñaanal yàlla tawfiix wér ak wér li fan bu gudda ak wér bu yaram ñu yàgg fi lool te wér yàlla may leen ati gine yi laaxa leen fa laaxa àggut aar leen iir leen musal leen te muccaloo leen ci lépp lu ñuy musul ak lu ñuy lépp loo xam ne ñu ngi koy ñaan te di ko ut te mu gën si ñoom jig leen te barke yal na leen ko yàlla defal Prince Mule yàlla may ko at bu mu mayut kenn ci ko àddina si kaw suuf mu ñëw béroom ba ci lépp yàlla def ko kilifa bu mu defut ko àddina si kaw suuf yàlla aar ko iir ko laxa ko fu mu laaxut kenn ci ko àddina si kaw suuf ci barke Cerno Moulay Sow si barke Cerno Moulay Sow si barke Cerno Moulay Sow ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam incha allahu rabbi amin ya rab amin ya rab amin ya rab asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu man la woon Fabakary Sonko Moulé nekk taalibe Thierno Moulé Sow fii si Angleterre bokk ci daarullahi international kër yàlla kër yonent jàkka ak juma kër laahu raw kër gi nga xam ne amut frontière di ñëw def vidéo bi ah ak kontante ak mbégte ci bés bi nga xam ne mooy bési ku tedd ki di suñ bés ñun mule mule yëpp mun munta nekk ci kaw àddina si kaw suuf ndik Thierno Moulé Sow moo ñu bokka boot muy international muy national muy Sénégambia muy soppe yi muy am di jàmm yi ñi ci biir ak ñi ci biti ñu ñëw ak ñi ñëwangut ñu feeñ ak ñi nëbbu ñin xam ak ñi xamut ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccu waaye di jëlaat nuyu beeg ziar beeg lépp tegaat ko ci loxo ku tedd ak ki nga xam ne moo ñu bokk a boot mu tasaareel ñu ko si suñ bes bu sell bi tombe ak ziar bi ak ubbi wàllu entreprise bi lépp sëriñ bi def ko benn invité si àddina yëpp nag. ñu am ci kontante ak mbégte ndig mu lay Sow moom a ah, wàcce nañu ndig moom comme nu koy waxee amut kër këram yëpp kër yàlla lañ kon jaami yàlla yi moom am na seen ite am na seen yërmande sonna ci ñoom du sonna du tay du lekka du naan du nelaw suba ak ngoon guddi ak bëccëg léppalum layte moom mu ci kon bés bi suñ bés la ba ci kontante la ba ci mbégte la ba ci yokkute la ah comme moom nu koy waxee rek yàlla ak yonent bi rek moo ko ñor te moom léppam yàlla ak yonent bi la kon bés bi comme nu ko waxee sant suñ borom rek la ñuy def di wa alhamdulillah alhamdulillah yàlla may ñu fekkee ñun ñëpp ñu duga si si bismillahi rahmani rahim ñu jeexal ko si alhamdulillahi rabbil alamin ànd ak kooku tedd ki yàlla wonale ñu boole ñoog moom teg ñu ci loxoom ñu ànd ak moom te yàlla tax ak yonent bi fañ ko fekk fam taxaw fa mooy joxoñ suba ak ngoon guddi ak bëccëg di saabal boromam allahu wahidun ahad asamad di ekati umma seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di daaxal lépp loo xam ne bokkale la ak xeetam du wax boppam du joxoñ boppam lépp daf koy delloo boromam ci baat yu sella yi muy wax muy laa hawla wala quwata illa billahi aliyil azim kon ñun dañoo am kontante am mbégte ci bés bi ah di wax sëriñ bi ne ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñun amuñ fayam di daf ñoo lebal bor boo xam ne mënuñ ko koo fay waaye di ko bàyyee yàlla yàlla mi nga xam ne moom xam lépp moo am lépp moo mun yal na ko yàlla fay ci fay yi gën ci fay yi ñun dañoo kontaan dañoo bëgg te dañoo doylu ci moom ba ñu yàlla tegee ci loxoom di wax ne alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah di ñaan yàlla bés bi ñun ñëpp bu kenn des ñu fekkee ko si bisimilahi rahmaani rahim ñu dugga si si bisimilahi rahmaani rahim ñu jeexal ko si alhamdulilahi rabbil alamin ci barke Thierno Moulay Sow si barke Thierno Moulay Sow si barke Thierno Moulay Sow si barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam incha rabbi amin ya amin ya rab amin ya rab jërëjëfe Thierno Moulay Sow jërëjëfe Thierno Moulay Sow jërëjëfe Thierno Moulay Sow moo lee dand nekk fii ci France di nuyu suñu xalif général de Guinée suñu xalif général kuli médecine traditionnelle suñu sauveur de l'humanité le missionnaire d'Allah ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare suñu kilifa suñu wëllëre suñu protecteur ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg loolu te wér na fi yàgg lool te wér di nuy madame Sow la reine le prince Moulay di nuyu Daarulaay international Ah, génn Sénégal bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu suñu jëwriñ yi di nuyu vraiment ñëpp rek bàyyi ñu kenn kenn kenn ah, vraiment di ñëw nag ah, vraiment di wax ni man ñaama soirée maa ngi fii ci France vraiment kontaan ci ouverture clinique suñu sëriñ Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow nga xamante ni dafay ubbi clinique le mars clinique boo xamante ni médecin traditionnel moo ko moo ko jënd muy suñu kilifa muy suñu sëriñ Thierno Moule Sow moo ko jënd R plus 3 pour faj jaamu yàlla yi pour ses patients macha allah macha allah macha allah dañ ci kontaan dañ ci bëgg dañ koy vraiment ah ñu ngi koy rafetlu di wax àdduna yépp li moom mosu fi am c'est la première fois c'est une première. nga xamante ni médecin traditionnel jënd euh, étage R plus 3 pour defar ko defaraat ko def ci njugu njugu kër dem Dubaay jënd jënd ay équipement pour kër gi gën rafet gën a jàng gën a confortable pour ses patients ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax yàlla na yàlla fay nga yàgg fi lool te yàgg fi loolu te yàgg fi lool te yàlla na yàlla jàppale gën la jàppale yàlla yàlla xeeb dolli yàlla yàlla xeeb dolli macha allah di ci kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax a baax le 4 mars ouverture clinique médecin traditionnel suñu sëriñ Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow ñu ngi ciy kontaan di ci bëgg waaw na ñëpp ñëw nag ñëpp ñëw macha allah macha allah après ouverture bi de dafay def ziar di ñaanal ñëpp nag comme ni mu koy defee comme d'habitude rek ñëpp la bëggal jàmm yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa jàmm yàgg macha allah ñu ngi lay nuyu di la nuyu waat di la ziare waat jéesal suñu njëbbal ci yow macha allah asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu alan kantan annabin kantan ceerno moo leen kantan man Adja Marème Fall maa leen di nuyu di di ñaan ci réew mi yal na yàlla def ci réew mi def ko ci réew julli yépp ci barke yonent suñu sëriñ ceerno mu lay saw mooy woote di bu clinique bi nga xamante ne lu mu am yàlla la ko tudde ak Seydina Muhammad képp kuy jullit suñu woote mi ngi nii suñu sëriñ sëriñ Seydou mu lay saw nee na muslimiina muslimaati nee bàyyiwul kenn ndax léppam yàlla la ak yonent bi nee na ñëpp ñëw bàyyiwul kenn góor jigéen ñu ngi sant yàlla na ñuy taalibe bi di julli ci yonent bi waaye képp ku dégg suñu vocal bii na nga xam ne mooy sa carte nga wuy suñu ku ñëw dana la teral ku ñëw dana la jox sa wàccuwaay ku ñëw dana la bëggal ndax yàlla rek la gëm ak yonent bi ñun nag ñu taalibe yi mënuñu lu dul lii ndax tubaarkàlla amul lu ñu ko fay lu dul lii ndax tubaarkàlla lu ne defal nañu ko guddal nañu bëccëgal nañu jële ci ndëndëm yóbbu ñu ci leer tubaarkàlla macha allah deseelu dara bu bisam bii yal na ko yàlla defar ba mu defar te daf koy defar ci kàttanam ak yërmandeem ndax yàlla dëgg la àndal te ceer mu dëgg la àndal sa kul yàlla na àggaleeg sagoon ci barke alxuraan ak karim fi amani la ah saw kula jiyel boroom nag ak meew kan moo woote allaaji Cerno Moulé Sow boroom kun fa yakun boroom allahu muhammad moo woote dafa woote bis bu rëy bis bu màgg di ca woo bépp mbokkum taalibe rek Cerno Moulé Sow moom lay woo bàyyiwul junne bàyyiwul rab bàyyiwul nit képp koo xamante ni soppe Cerno Mulay nga rek woo na la ci bis boobu Alaaji Cerno na suuru bis boobu képp ku teg sa tànk ca sa aajo faju na kan moo koy wuute ah man de bokkuma ci dinaa dem képp ku takk si man di nga dem ci Cerno Mulay Sow sa aajo faju ah Alaaji Cerno Mulay Sow waxee rek ko yaa jubóog suñu borom loo ñaan yàlla ne waaw Alaaji Cerno yaa ngi bëggal Sénégal bis boobu